di nuyu mbokk jullit yëpp yi nga xam ne ñu ngi ànd di teewlu jotaayu xam-xam yi nga xam ne ñu ngi koy def fii ci jumaa ji di ko dundale weeru koor jërëjëf sëñ Cheikh. jërëjëf sëriñ bi ci nuyoo bu am solo bi kon dañuy njëkkee ci laaj bu njëkk bi dafay laaj ne li yàlla sunu borom di wax ne huwa alladi anzala alayka alkitaaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitaabi wa uxaru mutashabihat muy laaj laaya jooju lu muy firi li ci borom xam-xam yi wax de mooy sunu borom nee na moo wàccee ci yonent bi alayhi salaam alquran am ci aaya yoo xam ne la muy tegtalee lu leer nañ ñi la lu leer nañ ñi la amu mel lan nee na yooyu nag mooy cosaan bi mooy yi nga xam ne ci lañ war a dellu bu leneen amee am ci aayaat yoo xam ne nag dafa jamtal ay maanaa yu wuute yoo xam ne yenn yàlla rekk xam lam ci jublu wala boog dañ koy delloo ci muxkamaat yi ñu doon koo xam bu wax nag ne ñi nga xam ne seeni xol ak nifaaq daa nekk ñoom ñooy topp aayaat yooyu nga xam ne dafa jamtal ay maanaa di ca dang dangi bàyyi fële aaya yu leer yi nañ benn wuute di ko jéem a firi ci anam goo xam ne leeru leen waaye nag nit ñi nga xam ne dañoo dëgër ci xam-xam ñoom dañuy wax ne daal alxuraan li ci nekk mutashaabihaat ak li ci nekk muhkamaat lépp ci yàlla la bàyyi ko ñun gëm nañ lépp buñ xamee maanaam mi gëm nañ ko buñ xamul maanaam mi gëm nañ ko xam ne yàllaa xam lan ci jublu waaw ah, loolu day wax ne foofu la julli war a nekk waaye am na ci alxuraan loo xam ne nit ki mën naa bañ a xam mi teg tekki ndax yàllaa ko bëggee noonu bu mel ne xuruf yi nga xam ne moom lañ nekk di ko daggate ci njëlbeenu ñuy te al xuruf muqatta ci njëlbeenu yenn saar yi la ci yàlla jubluwum rek moo ko xam ci dëgg-dëgg ak yu demee noonu yooyu la borom xam wax ne nit ku sax ci xam-xam te dëgër ci xam-xam du ca xuus waaye da koy day nangu nag yàlla bàyyi ko yàlla mi ko ëndi nag am na lu ci jublu donte xëy na seen xel ñu lot na jàgg ci ñi nga xam ne nag seen xol am na lu ci ne ñoom ñooy ñeente yooyu di ko jéem firi ak sax di jéem wax ne alxuraan daa wuute wala am na lu ci nekk loo xam ne leeru fekk yàllaa ko jublu loolu lañ dégg ci ay wow sëriñ Cheikh. jërëjëf sëriñ laaj bi ci topp day laaj mu ne ndax xele boo xam ne ak ña danañ ko digal muy woor ak nag su wooroon ba ci biir weeru koor mu yëg ne léegi nekk na mu kàllaf dañ koy digal mu woor wala déet ak wooree dana ko doy wala déet. xam nga woor daa am ay charte yu tax mu war nit bokk na ca albuloo mooy nit ci doon mag ci madhabu yom malik dañuy wax ne koor warut gone te deesu ko ko digalit maanaam deesu ko ci gaa ne dañ koy wóotale ak julli mi nga xam ne moom yonent bi salaam moo wax ne bu gone gi amee juróom ci juróom-ñaareelu atam nañ koy digal julli boo amee fukki nañ koy bàcc bàccal ngir mu julli ndax mu tàmm ko ñoom dañu wax ne jullit ay baamu ay yoon ci bis bi buñ ci tàggatul nit ki mën na ko bañ a tàmm koor nag demewul noonu bi ci des it dañuy wax ne li gone soxla ci yaramam woor mën na koo néewal doole moo duñ ko digal ndax day mel ndigal li mën naa bañ a bari njariñ waaye nag teewul borom xam yi wax loolu ne nañ bu gone gi bëggee woor te lor nekku ca dee su kooku tare ndax nag jamono jamonoy saxaaba yi bari na ci ñoom ñoo xam ne seeni gone dañ doon woor gis ngeen Seydina Omar mag mañ ko andi mag ma wóor mu naa ko fii nga xam ne gone yi sax dañuy woor dañ ciy dégg ne kon daan nañ woor kon gone gu dëgër goo xam ne koor gi du ko lor su taamoo di ko def kenn du ko tere ndax tam tàggat ci lu baax la waaye lu mën a xew nag gone gi woor moom naa naafile la ndax woor waragu su demoon ba ci diggu weer wi ak mage dab ko bis ya weesu woor waru ko woon kon du ko fay bis bi nga xam sax ci la ko dab màgg dab bu fekkee ne ginnaaw fajar la nga xam ne asamaan set na mu door a yëg ne mag la léegi kon bi woor di war booba moom woor waragu ko moo tax dañuy wax ne dañuy wax sax ne kooku bis boobu du ko fay bu fekkee mu woor mën naa wéy jàpp ndax naa file la bu ko fekkoon mu dog it mën naa continuer dogo day mel ne ku gis baax du ko fay kon bis yi ci des la la ko woor door a war waaye yëpp a dañuy wax ne koor waragu ko kon amul lum mu koy fay lam ci jot def nag fi la danañ ko gënal tiyaaba insha allahu taala kii moom day laaj nan la nit ñi di wooree su fekkee ne dañuy tuddee seen i penkukaay dafa wute ak ndax koo xam ne ci waa Sénégal la moom mu dem Europe wala Amérique ndax bu demee day sukkandiku ñoom seen gis wala day sukkandiku ci gisu waa Sénégal waaw xam nga li ñuy wax wuuteek mataalix yi ah, daa bokk ci masala yi borom xam-xam wuute donte ci madhabu malik li ci lëng siiw ci mooy dañ ne ñoom i'tibaaruñ ixtilaaful mataalix ah, lu dul ni dañoo sore lool dëkk yu sore ba jéggi dayo waaye dëkk yu jege moom dañuy jàpp ne seeni mataalix ah, yenn la ak lu mën a xew moom ixtilaaful mataalix am na xam-xam saxal na ko ba tey jii dañ lay wax ne la weer wi bis sàngam dana feeñ ba heure sàngam danañ ko mën a gis bët waaye barab sàngam ak barab sàngam duñ ko mën a gis ndax jant ba day soo maanaam weeru day suux balaa jant bee soo kon wuute am na su ko defee nag ñi bokki mataaliyaax wala ñu jegee ko mën nañu bokk di woor ñuy yëg weer woor waaye nag koo xam ne moom dafa jóge Sénégal dem ci beneen dëkk dëkk ba mu nekk moom lay xubayi xel ni ki nga xam ne julli tisbaar takkusaan timis du ne waxtu wi tisbaar jot na Sénégal naa julli déedéet fa mu nekk lay xool bu fa tisbaar jotee mu julli waaye bu fa dog jotee mu dog woor jotee mu woor buñ gisee weer mu ànd ak ñoom woor buñ gisee weer mu ànd ak ñoom loolu mooy li war bu fekkee dëkk booba duñ yittewoo weer ndax duñ ay jullit mu xool dëkk ba gën a jege ci dëkki lislaam yi foofu loolu lañ sant ab jullit waaye du wax ne ab dëkkam rek lay bàyyi xel te mi ngi wax nii mataalee mën naa wuute mën naa doon dëkk yoo xam ne dañ na lay wax ne la weer wa kat mënu fa woon feeñ tey te beneen dëkk ba moom feeñ na fa su nag li war a jullit bi mooy fi mu nekk lay bàyyi xel ci koor ak kori ci dog ak jàpp dëkk bi mu nekk la ci bàyyi xel dañuy wax sax ne su umoon Sénégal dem ci beneen dëkk ñuy woor ba woor fan weeri fan te gisuñu weeru yi ndax ñoom matalaguñ day ànd ak ñoom matal du sañ du sañ a dog naka noonu bu ñëwoon Sénégal ume feneen ñu woor ñaar fukk ak juróom-ñetti weer yu feeñ day woor yi te fay bis ko manqué waaye du sañ a wéy di jàpp kon woor ak woor yi barab bi nga nekk moom lañ ci bàyyi xel. kii moom day laaj mu ne ndax jigéen bu jigéen ñuy nàmpal may na ci mu dog ak ndax bu dogee war naa fay wala kafaara da ci bokk. waaw dañuy xàjjale ci mësa bi la ñaari ñooñu dañuy wax ne bu dee jigéen ju toll ab diggante moom sañ naa dog léeg-léeg sax day war a dog maanaam bu ko leeree ne bu wooree doom ji loru wala moom mu loru wala tiis wu métti dal ci kawam daa war a dog su wéree fay buy fay nag fay rek ko war ndax loolu wére di la bu fekkee nag xëy na ak aggut ci loru waaye nag metti na ci moom it sañ naa dog su amee jàmm fay bu dee nag kii nàmpal nga xam ne bu wooree doom ji du am soow ci ba mu soow mën naa loru mu ngi daa war a dog xanaa mu am keneen ku ko mën a nàmpalal te mu am lu mu ko mën a fayee su boobaa day wut koo xam ne xëy na woor waru ko wala mën naa boole woor ak nàmpal mu di ko fay wala muy coobarew di ko nàmpalal doomam ngir mu woor bu loolu amut ngir doomam mën a dund sañ naa dog kooram waaye moom buy fay nag bis bu set day joxe waale mudd day joxe waale dañuy xàjjale kii nàmpal ak ki ëmb ki ëmb moom dañuy jàpp ne ko wér di la fay rek moo ko war joxe mudd waru ko waaye ki nàmpal moom buy fay day joxe waale incha allah. kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci ku mu jëfandikoo piqûre yi nga xam ne day jëm ci sidit wala piqûre yi nga xam ne day jëm ci kaw yaram ak ndax am na lu leen wutal ñoom ñaar ci xeeti piqûre yooyu. waaw piqûre day ci borom xam wax. piqûre bi ñuy tuddee ibra mu gaziya boo xam ne day taxaw taxawaay lekk boobu lañuy ñuy tere ku mu jëfandikoo moom day yàq koor bu amee wéradi gu tax jëfandikoo ko it day jàpp ne daa am ngànt dog kooram boo léegi mu fay amma pikiir yi nga xam dañ koy def ci sidit gi wala ñu def ko ci suux wi waaye nekkul mu xasiya taxaw taxaw taxawaayu dund lekk ak naan ay du tey nit ki bu ko defee day lekk day naan pikiir boobu ñoom dañoo wax ne du yàqu ko ndax amul amul taxawaay boobu waaye pikiir bi nga xam ne suñ la ko joxee du soxla ngay lekk du soxla ngay naan loolu dafa taxaw taxawaay lekk kon jox la nga lekk loolu mooy yàqu ko loolu la ci waroon xam wax sëriñ kii moom day laaj dagan na ci ku mu may deret ak jël dara ci deretam ngir def ay analyse dañ koy ci li ñuy namputal dañ wax ne nit ku néew doole nga bu namputalo man na ca mir mir, mu yak koram koko dañ koy sip ci moom yi bëgg na baye ba dog naka nonu jël deret mo xam da koy jël ngir liko maye wala day def ay analyse Euh, bu fekkee ne kàttanam may na ko man daal mën nañ koo jël ci moom deret du ko yàqal dara subaa sañ na ko du yàqu koor ragal rek mu miirloo ko tàggale ko sagoom ba àgg ci xaala boo xam ne mën naa dem ba kooram yàqu waaye bu ci la amul nag kenn terewu ko waaye buñ ko ca ragalee rek sib nañ kon moytu bañ ko def mooy gën ak mu ko nag ba kooru ren ne kooku lan mooy atteem ak lan moo war ci moom kooku sëñ Cheikh day jàpp rek ne amee na borom ñetti koor yoo xam ne bu fekkee ne ñàkk a fay ga sàggan moo ko teg bi bi barax lu ñëw mënoon naa fay waaye moo fayut bis bu leen di fay bis bu nekk dana ko boole joxe mu du ci am ñam ci ñam ndax dañ koy teg ay daan ngir sàggan bu fekkee nag ni ak wéradi la wala ngànt la woon moo tax mënutoon a fay maanaam barafu jot na mënta fay ngir wéradi wala ngir ngànt yeneen su boobaa nag day fay kese day fay rek waaye bu fekkee gàttañlu ak ñàkk a soxal ñàkk jox mbir mi yitte moo tax mu bañ a fay bori ba ramadaan ñëwaat su jàllee ba mu koy fay faw day boole fay ak lele joxe ñam waaye ramadaan mi moom kenn mënu cee woor weerin weer ramadaan rek la ñuy teew la ñuy woor maanaam mënta woor ramadaan ren di ci yéene gu jàll kon day woor ànd ak nit ñi koor gi teew bu koor gi jàllee nag mu fay yowee su te bu koy fay te sàggan waral ko bis bu set mu joxe waale mudd lu tolloog cinq cent vingt cinq grammes ci ceeb kii moom day laaj mu ne lan mooy àtte jëfandikoo pâte dentifrice wala tuufaay yi ñuy def ci nopp wala ci bët ak ndax bu fekkee ne ki woor da koo def yëg ci caf ci ak bëleen ndax dara war na ci wala déet waaw ci musab bi dañuy wax ne toqal dara ci nopp ak ci bët ak ci bakkan bu ko ni defee mu àgg ci bëleem day fay naka noonu dentifrice ñoom dañ koy yéegal ci socc bu tooy dañuy sib nit di woor di soccoo socc bu tooy ndax bu ci dara rëccee jàll bàgg ci buleem day day day yàq kooram naka nu pat dentifrice bi it bu fekkee ne am na lu ci rëcc ba àgg ci buleem day jàpp ne bis mu war na koo fay lu tee dana jàpp waaye day fay bis kon li gën ci yu mel noonu ay dentifrice yooyu nit ki su jëfandikoo ba noppi rek mu def ko maanaam bu xëddee ba noppi mën naa raxas ay bëñam ba set te fekk jàpp jotagut bu baax loolu du ko gaar bu dogee ba noppi du ko def yaakaar naa du soxla ci digg bëccëg bi ndax moom ngir dindi aw ñam buy des ci ginnaaw boo lekkee moo ko tax a jóg daanaka kon nit ki mën na koo def ci waxtu woo xam ne terewuñ ko waaye jëfandikoo ci bëccëgu Ramadan moom dañ koy sib ndax dafa wóoru waaye nag bu yàlla dogaloon mu jëfandikoo ko te dara jàllu boobaa it ko baax moom waaye bu dara jàllee yéen day yàq ko naka noonu toqal yooyu ñoox yëpp bu la leeree ne dara jarut àggu ci bëli gi koor baax na waaye bu àggee ci bëli ba nga yëg ko moo xam ci bët la jaar wala ci bakkan wala ci nopp bis ba da koy fay te du tee da nga jàpp la des ci bis ab bëñ bokk na ci yàq ko waaw ci masab bi dañuy wax ne dañuy sib faj bañ bu wéradi ci bëccëgu ramadan dañ koo sib ndax moom itam dara mën naa jóge ca la nga koy faj jàll waaye dañuy wax ne bu dara jàllut nag koor ga yàqu waaye lu jafe la di faj bëñ ci bëccëgu ramadaan ba noppi dara jàlle saa bu dara jàlle rek fay daay day war moo tax dañuy wax ne yu mel noonu ci gën bu ko nit ki mënee def na ko def guddi bu dogee allahumma docteur buy faj guddi amut te tànk metti metti di metti de ba mënu ko mun suba ngant la nga dem faju ji bu yàlla dogalee am lu jàll mu xam ne dog dog la ngant la day fay bu dara jàll tit mu xam ne koor gu baax jërëjëf kii xam waaw xam nga nit bu tàggoo sagoom dañ ko yéegal ci xam bu fekkee ne diir bi yàggul te fajar bokku ca bu yàq koor maanaam waxtu yi nga xam ne ci la war a jàpp yéene bu fekkee waxtoo mi nga ànd ak sagoom waaye ci bëccëg bi nag lañ ko def ay waxtu mu dañ su boobaa koor Amma baax bu fekkon tay dañ ko def li ëpp ci bis bi wala mu yóbbaale dara ci fajar waxtu nga xam ci lañu wara japp waxtu woowu bi ñu jàpp di jot fekk na mu tàggaw sagoom koko day fay bis boobu ndax kooram bis bu kon yi mel noonu it di moytu diko ko def ci bëccëgu ramadan moy li gën allahumma mu xamne du yagg mu ci wat te eh, jamono yi koy def moom fekk na japp yesu nga xamne fas na yéene kooram mu nopp kii moom day laaj mu ne su fekkee ne dafa am ëmb boo xam ne dafa toll ci ñetti weer yàlla dogal mu faatu wala daal matagul daal mu faatu ndax buñ ko dee denc dañ koy denc comme liir bu juddu mat sëkk wala nuñ koy def waaw ci mazhab bi de dañuy wax mooy sëqat mooy lu juddute matul ñoom dañuy wax ne kenn du ko sang kenn du ko sang dee su ko jullee danañ raxas deret ja laxas ko ci ab morsa rek denc ndax kooku ñun jàppee guñ ko nit loolu mooy mazhab Imam képp ku juddu te matul noonu lañ ko jàpp kii moom la ne lan mooy àtte koo xam ne dafa wax soxnaam ne ko boo génnee ci kër gi yàgg say bagage loolu mooy sa passé waaw moom lan la wax soxnaam na ko déglu bis bu génnee bagage yooyu soxna tas say ba tas na sa bu ni waxe lol soxna mom da ko acc mbir mbir mu ko acc nak sa yu amé rek sey tas kon soxna su bëgge tas na jël ay bagaasam gën sa bu gënne kër gi sëy kii dafa laaj ne ndax kabar yi ñi def ci ñaari rakka yi mujju ci julli bi doon ñent rakka dañ leen di yalu ni ñi yalu li ñi jàng wala déet jëmmi kabar kabar ci julli kabar yépp yépp dañoo bëgg di ko yalu ilimaan lañ bëgg muy béral ay kàbbaram bu dee maam moom wala kenn kuy julli ñaar lañ bëgg mu béral kàbbaru armal ak sëlmal yooyu lañ bëgg ñu béral ko waaye ci des yëpp dañoo bëgg aji julli ji yelu ko xanaa ab jottalikat bu fekkee ilimaanam kàddam xubut am kuy jottali moom mën naa yëkkati kàddoom ginnaaw ilimaan waaye ñi ci des ñëpp allahu akbar sami allah liman rabbana wala kalam yëpp dañoo bëgg ñu di ko yelu ilimaan lañ bëgg muy wax ci kaw ak bu jot li ko amee nekk aajo kàbbaru armal ak sëmal na moom ñëpp lañu bëgg ñoo ko ci kaw jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne commerçant boo xam ne nee na moom bu dee génne azaka da koy xayma ci njëggam jënde woon léeg-léeg mën naa am marchandise mu yokk waaye nee na buy xayma njëggam jënd wu rek lay xayma muy laaj ba xam ndax loolu dana baax wala déet ak su fekkee ne baaxul at yi mu si jotee génne azaka ci anam googu lan mooy àtteeg loolu mu def ko. waaw ah, xam nga ci asaka bu dee yaxantu dañuy wax ne capital bi ak bénéfice bi yépp la amoon benn capital liggéey ci at bi at mi jeex alal yu bari juddu si ca nga xam ne bénéfice bi bari lool matagul at sax asaka da ciy war bu asaka waree ci capital bi moo tax dañuy wax ne borom xooxee bu nit di xayma am njaay njëg gi mu koy jaayee lay xayma njëg gi mu koy jaayee la war a xayma ndax bu ko jaayee njëg gi mu ko jënde woon fekk mu yokk mën na koo xayma ndax junni la ko jënde woon waaye mi ngi koy jaayee junne ñett téeméer mu xayma ko léegi junni génn asaka ji ci ngoon gi mu jaay ko nit ñetti téeméer yooyu mu jaay asaka yenn ji te war na cay génn bi ci des it loolu mu wax noonu li tax mu jafe-jafe bu wàññi ko woon fekkoon da ko jënde junni gannaaw mu daanu bay jël juróom-ñetti téeméer jàpp mu ne dana ko xaymaa junni bu koy jaay bu ko bu koy génne asal bu daanu woon moo tax liñ santaane mooy li nga koy jaayee tey ci jabi nii loolu nga war a xayma booleeg xaalis bi nga am ak bor yi nga la ameel te seen waxtu fay ko jot nga génn boole ko génne asal génn ci bor yi nga xam ne yaa ko ameel nit bu fekkee li nga ameel nit ñi boo ko ci génnee la ca des du man ne saab parce que ma bor ay daal nit ki moom bu dee ab jaaykat di la ko jaay su waxtu asaka jotee day xool li yor ci xaalis xayma njaay mépp ci njëg gi mu koy jaayee tey noppi ak bor yi ñu ko ameel te waxtu fay ko jot te xam na ne ñu ko ameel danañ ko fay dañu ñëw bu demee danañ ñëw bu dajalee loolu lépp génn ca moom ñi mu amee li bor la ci des mooy mooy mooy alal ji su ma tey nisaab mu génne ko yoon yu gën a gàtt ci génne asaka nag mooy alal ji nga diviser ko 40 lu mu la jox mooy as mooy mooy askan bu xasee man nisaab nisaab nag fi mu ne nii jege na 3 millions yi dana tegal dara euh, kii moom day laaj mu ne lan mooy àtteb koo xam ne sikki sàkk daf koy faral di gaar lu bari su dee julli léeg-léeg du xam ndax ñaata rakka la julli wala bu dee jàpp muy sikki sàkk toj na wala tojul ak yu mel noonu waaw koo xam ne sikki sàkk da koy gaar lu bari de dañ leen di tudde ñooñu bu fekkee ci julli la wala ci jàpp dañ koy wax ne ko li ngay sikk sàkk bu ko faale maanaam saa buy sikk sàkk ñett la wala ñeent na jàpp na ñeent la buy sikki sàkk benn wala ñaar jàpp ñaar la waaye nag su jullee ba sëlmal na sujjóot ba'da salaam ngir toroxale ko seetaan ki nga xam ne nag sikk nekkut jàngoro ci moom maanaam léeg-léeg la koy gaar kooku dañuy wax ne saa sikki sàkk day jàpp li gën a néew buy nattale ñaar la wala ñett ñaar lay jàpp amaa kii nga xam ne nag mustan kex lañ koy tuddee mooy da koo da koo dëkkee nga xam ne bis bu set dana ko dal donte benn yoon la kooku daa wéradi bu sikki sàkkaate bu mu jàpp lim si na jàpp lim bu gën a bari te bu jullee ba sëlmal sujjóot ba'da salaam kii moom day laaj mu ne lan mooy charte mu kàllaf maanaam yan mooy daje ñu ne kii mu kàllaf la mu kàllaf na at moo xam ne dañ naan at sàngam ku ci ku ko am nekk nga mu kàllaf Euh, mu kallaf sëñ am na ñetti charte yoo xam ne mooy daje nit ki nekk mu ñett benn bi mooy naan nag am sagoom am xelam nit bu wér dee wér di xel yàlla tëggul ko jëf ñaareel bi na doon mag na àgg ci apub doon mag gone nekkul mu ñetteel bi na yëg ne woote bi lislaam ak seen ñetti sàrt yooyu la la la mu mu kàllaf waa joo xam ne tey bu fekkoonte ne am na ci àdduna mi ngi ci xunt yoo xam ne mësta yëg ne lislaam am na kooku du mu kàllaf kooku day mel ne ba tey ci ahlu fatar la bokk yëgut ne am na yonent bu yàlla yónni woon sallallahu la wa xëy na loolu moom daanaka bëreetul bu amee it bëreetul ci àdduna waaye ñaari sàrt yi moom ngir nit nekk mu kàllaf day ànd akum xelam ku xas wéra di wéra di xel at yu mën am ci àdduna nekkul mu gone goo xam ne nag baaleexagut kooku du mu kàlla buluux nag am na ay mandarga yuñ koy xamee bu dee ci mësëb bi dañuy tudd juróom yoo xam dañuy wax ne ñett yi góor ak jigéen ko bokk mooy naq kawar mat na saa bu génnee moo xam ci nelaw walla ci ak yëg su boobaa mat na baaleex na su amee fukki at ak juróom-ñett loolu mooy mësëb yoo ñett yoy goor ak jigen ñoo ci yam ak yeneen ñaari sàrt yo xamne ci jigen lañ ko sàrt moy bu gisee bax wala mu ëmb donte am ñu wax ni ne ëmb gi génn màndiyu moo koy jitu mu dara waye am dañu wax ni ëmb ak ak gis baax màndarga la ci ne bu ko jigen dal da euh legi nek na mu kàllaf am na ñu tuddu ci ci ngeer mi ne màndarga la ci ak magi goor su ne ba ay taram di am xet gone góor goo xam ne majeur gu bokk tànn am xel tàmbale am xel rek na xam ne baaleex na bu demee kàddu gi diis dëgër nga xam ne nekkatul gone loolu bokk na ci yi ñuy xamee eh, mandarga ne moom nekk na mag léegi yooyu daal lenn la ci yi nga xam ne danañ ko xamee ci ci ci mazhab bi waaye charte yi moom ñett yooyu la benn bi daanaka mutu solo waaye ñaari mooy faw mu ànd ak akum xelam faw mu baaleex ku ànd ku nekk baaleex ci yi ñu wax nii te amu am xel nekk mu yi ñuy santaane yépp waru ko ndax nekk mu kala waaye bu xasee nekk mu kàllafit euh, ci benn ci ñu wax maanaam mu kàllaf gi mooy yi ñu tudd fukki at juróom-ñett day mel ni moo ci mujj maanaam bu saxee kawar yooyu ñu wax wala mu génn màndi wala bu dee jigéen mu gis mbërëg wala mu ëmb yooyu yëpp bu amul mu amee fukki at ak juróom-ñett bale doon te gisul yeneen màndar jërëjëf sëriñ bi kii moom day laaj mu ne koo xam ne dafa fekk imaam di julli suba nekk ci sujjóot bu mujj bi ci ràkk bu mujj bi mu ne kon ndax kon dagan na mu dem julli ci fajar ñaar ràkkaay fajar loolu julli suba ah, li nga wax rek ginnaaw fekk na ràkk bi raw na ko ba noppi hmm. kon mën naa bañ a ànd ak imaam mu dem julli ñaar ràkkaay fajar loolu julli suba xam nga nag yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li mu santaane woon mooy bu ngeen di julli ji na ngeen baaxu ci fulla waaye bu leen daw bu ngeen àggee lu ngeen fekkee ngeen julli ko lu ñu leen rawee ngeen mottali dañuy wax ne nit ki bu fekkee fu mu mën a fekk ilimaanam fu mu ko mën a fekk na kàbbar tàbb ci julli bu fekkee amul ci lu mat ab rakkaa nag bu imaamam sëlmalee mu jóg julli kon foofu ñoom kenn ndax fekk nañu julli suñu ko bàyyi di def tahiyatul masjid wala muy def ñaar rakkay fajar waaye day dugg ci julli gi ànd ak imaamam donte amu ci rakka ndax am na ci borom xaw ñu wax ne kàbbaru armal képp boo ko defee ci julli gi am nga ngeneel ngir xel wax jooju day na dugg ci julli gi donte ci mën bu jàpp na ne amul julli mbooloo waaye na dugg ci ànd ak ilimaan bu sëlmalee mu jóg julli julle ndax dañuy wax ne boo fekkoon sax ñuy julli farata boo ci yéenewaalee naa fi da koy am parce boo ñëwoon fekk ñu taxawal fajar ñaari ràkkay suba te jullee boo ñaar ràkkay fajar da nga koy yéenewaale ci biir boo ko ci yéenewaale am ko ca kon moom na na def noonu yéenewaale ko ca waaye nag di beru di julli ñaar ràkkay fajar fekk ilimaanam sërmalakut loolu du ndigal moom kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci ak jullit bu góor mu jëfandikoo alalu magam ju jigéen wala rakkam ju jigéen joo xam ne day liggéeyee wàllu jokk kawar waaw ah, xam nga nit bu nekkee mbokkam moo xam ne day jëfandikoo lu dëggan la jiitu ci lu ko war mooy al amru bil maaruf wa nahyu anil munkar bu fekkee mbokkam moomu day jokk kawar jokk kawar dafa xaraam yàlla dafa rëbb ki koy def ak ki koy def lu ci làmmiñu yonente bi salallahu alayhi wa sallam laana allahu alwasilata wal mustawsila waasila mooy jigéen ji lett di jokk kawar jokkal nit ñi seeni kawar mustaw si la mooy ki koy deful ñëw joxe xaalisam ñu defal ko yàlla rëbb na ñëpp te rëbbum yàlla nag dañuy wax ne luñ ko wax rek bàkkaar bu mag la kon li ko waroon mooy tere ko waaye saa bu jëlee àll ju xam ne ci la ko jëlee loolu moo ngi koy encourage ci mu nekk kooku deful li ko war amma bu doon benn jàmbur boo xam ne moom séquñ dara mu dajeeg moom fenn mu yëkkati alalam jox ko ci loola kooku sañ na ko lekk waaye moom mii daa séq mbokk mi loo xam ne lekk alalam ci anam googu moo di ne li ngay def lu baax la loolu lay teg moo tax képp koo xam ne tey da ngaa doon kilifa am kilifteef ci nit muy def lu bon bu ca jëlee alal julewut sañoo ko lekk ndax sag lekk ko mooy ne ko li ngay def lu baax waaye bu daje woon ak jàmbur boo xam ne nag sequñ dara ci yooyu yëpp bu ko joxee sañ ne ko lekk ndax dañuy wax ne alal du caa génne jëmmi alal ji mooy araam alal nit ki ni mu ci jotee ci lay araam mbaa daga ndax alal moom ab junni ci misaal bu ne woon junni bi dafa xaraam mooy niñ ko fàggoo moo xaraam waaye junni bi mu kenn du ko lakk kenn du ko gas suul dañ koy jariñoo léegi nag moom ñu ko fàggoo ci anam gu dëgganut moom sañu koo jariñoo ak njabootam sañu koo jariñoo ab sëriñam sañu koo jariñoo waaye bu demee ca daara ja wala ci jàkka ja wala mu dem ci dispensaire ba fekk ñu néew doole mu jox leen ko sañ nañ ko lekk ñoom kon yu mel noonu it loolu ba mën ta ca bàyyi xel ki nga xam ne yow sa mbokk nga am lolu war ci mom digel ko bax ak tere safan bu de def ab safan dila ca may ngay lek moy yang koy yang koy jappale ci safan te dimbalante ci bakkar rek bakkar la sëñ Cheikh kii moom day laaj mune lan moy àtte ko xam dafa for ak kurus diko ko di ca wér ndax dina ca am tuyaaba ci wér gu muy wér ci kurus bo la jott waaw bu ci yene ndax xam nga for la am ay ci lislaam ci for lu am solo dañuy bëgg mu xamle ko ci barab yi ko yaakaaree ci diir ñu wax bu diir yooyu jotee nag sañ na koo jariñoo sañ na koo saraxeel kooka sañ na ko saraxel boppam waaye lu ci mën a xew day yéene saa yu borom feeñee mu fay kon moom bu ci day wér ànd ak yéene saa yu borom feeñee mu fay ko ko bu ko ko mayut su boobaa incha allah lam koy jariñoo mën naa am njëriñ li bon daal mooy mu di ko nëbbu nga xam ne fas yéene borom ba ko gis waaw nag jëfandikoo alal jàmbur la te yàlla dee su ko topp ci loo xam ne ak mooy ko la jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne lan moo tax yenn wayjur yi di tere seeni doom yu góor ñuy takk yenn ci xeeti jigéen yi ne doo takk xeet sàngam man ndax loolu lislaam moo ko jàngale euh, sëriñ seex lislaam de lim jàngale mooy bu nit dee wut soxna di góor nañ xool ci moom ñaar nañ xool diineem ak jikkoom su baaxee nañ ko may sol bu dee jigéen gis na ci xool ñeent waaye ba ca am solo mooy diine ja danañ xool taar ba di xool alal ja di xool juddu ba waaye nee na diine ja ca am solo kon yooyu ci la lislaam teg ngir ànd diggante góor ak jigéen am na nag yoo xam ne ay aada la fi yàgg nag yenn yi lislaam bi la ko fekk xeex na ko ba sonn waaye daa mel ni jëlee ko fi jafe mooy nit ñi moom dañoo séddale seen bopp ay catégorie ci ay jamono ay ñuñ moom ak ñu nekk jàpp seen bopp ay sang ñoom la woon ci ay jamono ay ba léegi ay borom yi xaalis ak ñu néew doole lañ ñenn ñu nekk dañuy xeebante seen biir waaye du loolu du lislaam waaye nag ab sëy nag bëgg nañ ñaar ñiy boole ak nawlonte am seen diggante nawlonte gi mooy ay jullit lañ nawlonte ci diine mooy seen seenu jëfandikoo diine bañ a soree maanaam nit koo xam ne diine da koo ñor ba dara ci ndigal yi du ko xëtt ak koo xam ne maanaam buy jëfandikoo diine lu gaar lay doon ñaar ñooñu wari su leen boole ci sëy waaye bu dee ñoo xam ne bokk na bëgg diine lislaam foofu lay xool ak naw loon bu ko defee nag yi des moom ngir ab sëy mën a ànd mën a neex ñi ko séq kenn bañ caa xeeb morom di baax na ci am na loo xam ne bu ko lislaam terewuti boo ko defee ngir ne man li lislaam tërëwuma ko da nga def ba ci biir ngi séet ko ndax dañuy dem mu yàgg duñ mën a déggante xam nañ ne yonent yàlla muhammad alayhi salaam mayoon na mbokkam zeynab bintu jahsh radiyallahu anha zeyd ibnu xaarisa waaye daa mujj rek wax na ko ba tey am sika alayka zawjaka wattaqillah soxna si am lu mu gis ci zeydu lu mu ko jàppe ba sunu borom mu jox ndigal yonent salaam ne ko na ko wàcc sant yonent islaam mu jël ca ko bokk na ci jàppoon taban nii ndax da koo jàppoon doom ba daan nañ koy ay jamono Zayd ibn Muhammad kon dafa mel ne ay aada yu dëgër la nag yoo xam ne du lislaam moo ko santaane waaye daal baax na ñaar ñi dencante ñu bañ a xeebante bañ a yebante ndax dana tax seenu sëy mën a déggoo ma naa am mën a yàlla waaye bu xeebante wala yebante amee rek buñ doxee tuuti kenn ku ne tàmbalee gis bopp xëy na ñenn mag ñi yu mel noonu la ñu bàyyi xel du ne dafa xaraam wala dañ waaye ak déggoo ndax ñaar ñii boole ñu ne dañuy bëgg nu mu gën a mën a yàgg moo ci gën waaye léeg boole yoo xam ne xam nga ne mënta yàgg loolu it bari wut njëriñ waaye nag du lislaam moo wax ne ay waaso sàngam waruñu leen njëriñ ay julit la wax ay julit yu am diine am jikko ñooñu la ñu war a boole. waaw jërëjëf sëriñ kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci kuy wàññi ci tukki muy julli julli naafila waaw dañoo sant ki wàññi muy nafila xëy nag am na woyofal ndax mën naa nafila ci kaw daaba ji bu dee oto la dugg mën naa naafila ci biir oto bi fu oto bi jëm mën naa jëm foofu loolu sax na ci sunna euh, kon wàññil nañ aji tukki ji julli ñeenti rakkaa mu di ko julli ñaar waaye nag dàqut nafila yi yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu salaam ci ay tukkeem dara nafila waaye nag mën nañ ko woyofal naafila gi mën na ko def ci kaw daamar ji nek nekk fas la war bu dee oto dugg te it bu waa sartatuñ ci mo mu jublu xibla fu daamar ji jublu rek fa lay jublu ki mo day laaj mu ne ko xamni dafa sangu cangaay aju ndax dana wër mu man mën caa julli ca cangaay loolu te du japp bu ci jappé ñap mo xamni farata la ci yéene man nak waye waaye bu dee sangu gi rek la cangaay loolu naafila la te jàpp ngir julli ajuma farata la naafila mënta wuutu farata waaye farata moom mën a wuutu naafila bu doon cangaayal janaaba moom mën naa wuutu cangaayal ajuma wuutu njàpp mi waaye cangaayal ajuma rek sunna la kon bu ca bëggee julli ajuma da jàpp njàpp moo xam ne da yéene euh, laab da ci yéene laab su boobaa mën na caa julli insha allah kii moom day laaj mu ne lan mooy àttal jigéen joo xam ne boroom këram da sàkk mu bañ daan ne moom daal lépp fi bàyyi rek mooy ak njabootam waaye sëy bi moom waxatu ci dara. waaw bu fekkee noonu la deme de def na lu ñaaw ndax yonent bi alayhi salaam wax na ne saabu boroom kër soxlaa soxnaa mu bañ guddi googa malaaka yi dañ koy fanaane rëbb kon bàkkaar bu rëy la soxna boroom këram soxla ko mu ngànt ci lu lu ngànt ci lu lu ngànt amma bu àggee ci nañ ne ko ay doom ak bàyyi way soxlatu sëy bi gàddu ga muy àddu àqee na ñaan baat sëy ba tas mu gën ndax sëy mën naa tas fekkee déggoo nañ mu des mu des ca kër ga di wax ay doomam fekkee may nañ ko waaye ni ci sëy bi te joxoo sëy bi àqam loolu mën na indil jàmb ay jafe-jafe bu ëllëgee ndax àq yu rëy la yoo xam ne suñu borom da ko sàmmulu bëgg bu ëllëgee it dana ko laaj jaam kon nekk ak sa borom kër di gàddu àq ci moom loolu wóorul kon buku ko ya, mënta wéy rek mën na ñaan baat bu ko mayee baatam bu tok mu tok ngir njabotam waye ngir baña ga gàddaaq waye feeg mi ngi don soxal mom na xam war tey fi soxla la koy war suñ ko bu tëggilu ki mom day laaj mu ne lan moy ko jinne rab la koo dugg ci xaram dal jamono ñuy jëg ba julli xamul mu ne ndax kooku war naa sujjóot wala déet euh, li ñuy wax foofu mooy lu mu def ndax ndax ndax dugg ji ko jinne ji dugg daa tax mu yokk ci julli ji wala mu wàññi foofu la ñuy xool bu fekkee yokkul wàññi moom sujjóot waru bu yokkee ci julli ji rek dana sujjóot bu ci wàññee dana sujjóot amma bu demee ba tàggoo ak sagoom nga xam ne xamatu fu mu nekk moom day jàpp ne kooku julli gi day yàqu moom diggante boo xam nit ki wante ko xelam julli ak ànd akum xel day tax ci la bokk ci sart yi la bokk bon takum xelam bu dee nag diir su gàtt la ko def del su xelam del si te defu fi luy waral sujjóot ba'da salaam wala qabla salaam kon sujjóot waru ko kii moom day laaj mu ne ndax dagal na ci koo xam ne nii day football bis yi nga xam ne da koy am ay match ñu wañ koo woor liggéey bu dagan boo xam ne kenn wérante wu dagan dëgënut nit ki di liggéey tax mu bañ a woor liggéey bu tegu ci yoon dañuy wax ni soo yoon di liggéey day woor su demee ba gis ne mënta wéy sañ naa doon doon bu mar àgg ci foo xam ne bu naanut ba wutul dana loru day doon waaye du wax ne tey liggéey bi day metti su ma xëy du ma woor loolu sañu ci liggéey bu dagan boo xam ne kenn ren jóg football nag fii ma fii ndax ñi dagal dañuy wax ne bu ci am ko nekkul bu ci carte nekkul wuñ ñi awra nekkul ci jaxasoo góor jigéen nekkul ci faat waxtu nekkul ci suba dagan ñi ko daganal loolu lañu wax bu yëpp dàqoo kon loolu nekkul ngant luy tax nit ñu ne ko dagal sa koor bu ci dog koor ngir loolu da nga fay da nga kafaara ndax day jàpp ne xotti war may ramadan daan amaa bu ci nekkoon boo muy tam mar dab woo xam ne bu naanut loolu Kok sañ na dok korom ngir soy ba kanam wa day fay bis ni ki nga xamne yeneen liggey yëpp loolu lañ ci santal jere sëriñ bi ki mom day la mu ne ndax dagal na ci abdulit su waré genn lu muy joto ci koor gi mu genn ko ci khalis ak ndax man na boole lepp rek mu genn na ko benn yoon su amone ay fan mu boole lépp génne ko benn yoon waaw dañuy wax ne lele de li ci waroom xam-xam yi wax mooy ñam lay doon moom day sul génne xiima ji lañ wax maanaam ku génne mudd mudd ngay génne la jëgërit nag bis bu set ñu génne waaye bu dajale woon juróom fan daal di loo juróom fan baax na ndax léeg sax mu am njariñ ndax génne loo ab lim jox ko nit mu amal ko njariñ léeg-léeg bu dee benn mudd boo ko joxee de na ko bañ njariñ lu am sax wala mu bàyyi ba weer wi dee mu dajale lépp nga xam ne bu ko doon wàññi bu dee fanweeri fan dana jege fukki kilo ak juróom-ñeent ci ceeb bu ko génnee day mat ba tegal tuuti su boobaa mën na ko génnee benn yoon joxe waaye li gën te nag mooy saa bu xëyee mu joxe saa bu xëyee mu joxe waaye bu bàyyee ba weeru jeex mu dajale ko joxe koy dara nekk waaye nag ñam la ñuy génn. kii moom day laaj mu ne lan mooy àtte koo xam ne du ab jullit jël alalam di ko dépassé ci loo xam ne lu baax la lu mel ni ki jàkka. waaw xam nga jëfalan suñu jëfalanteeg ñi dutu jullit ci àdduna lislaam dañu koo daganal laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatilukum fi ddin wa lam yuxrijukum min alxaan la mën nañoo jëfalante ñoom di wecc ko ay hadaaya yonent yàlla muhammad alayhi salaam yahood yi daan nañ ko jox ay hadiya muy nangu kon kuñ ci may sañ nañ koo jël bu ñu fekkee ñu ne ci porose bi lislaam ñu jox la sañ nañ koo jël maa nag ñoom duñ ci am tiyaaba maa tey bu yéefar fekkoon ay jullit ñu tabax jàkka mu joxe ci alalam danañ ko jël def ko ci mën na ko jariñ ci àdduna ndax dana tax jullit ñi maslaak moom bu dee ab jaaykat mën naa tax ñu jënd ci ay marchandise deelu jaayul dagan waaye nag du ci am tiyaaba moom tiyaaba ji nga xam ne bu doon ab jullit bu ko participer day mel ne ku tabax jàkk am tiyaaba jooju moom du ci am tiyaaba waye nak man nako ko ci àdduna motax seen yu bax ñoom man na la jëriñ ci àdduna waye du leen yamul xiyam ndax yamul xiyam de su fa jëriñu te gëm am te gëm euh ki mom day laaj mu ne ndax dagan na ci abdulit mu jënd ci barab bo xamne ne dañ fay jaayé ay naan yu haram bitik bo xamne day jaayé lu dagan waye day jaayé la ay sàngara yoyu mu ne ndax mën na faa dugg moom jënd boisson dem yoonam. bu fekkee ne yeneen boutique am na yoo xam ne lu dagan rek lay jaay di jaadoo ci jullit moom mu dem foofu ndax loolu mooy li ko war bu fekkee nag benn boutique boobu fa am te lépp lay jaay te moom aajo woon a jënd sañ naa dem jënd lam soxla lu dagan dem yoonam waaye nag la gënoon moom mu am yeneen boutique yoo xam ne ñoom jaayuñ loola boobaa na fa bàyyi kay rax lu baaxul lu baaxut ndax su jëndee ci moom mi ngi koy jàppale ci kanam kon dem ci kii jaay lu dagan rek mu jënd ci waaye bu fa sësee nag bàkkaar du bàkkaar bàkkaaru jëmm dee su ko sëf keneen moom miy jaay lu xaram mu am bàkkaar bi kon yow boo dikkee jënd fa lu lew la ca def sa yu kii nee na moom dañ ko yónnee benn somme ci alal jaare ko ci jumtukaay yi ñuy yónnee xaalis waaye na xamul ki ko yónnee kan la tey mënut a jokkoo ak moom mu ne kon ndax mën na koo jëfandikoo yéene ca ne saa bu borom feeña mu delloo ko ko waaw day jàpp ne lu ñu for la rek mën naa am ku doon yónnee jaawale mën naa am sax ku waa ko jublu da ko bëgg a joxe te bëggul ko xam ne moo ko joxe waaye ginnaaw léeru ko moom bu gëstoo gëstu mënta am benn bunt bu xam fa mu jógee na ko jàppe lu mu for lu ñu for nag boo koy jëfandikoo bu la neexee nga saraxeel ko boroom bu la neexee nga lekk ko ko jariñoo ko yéene saa yu borom feeñee nga fay waaye loo xam ne nag xamoo ba xam borom dana feeñam déet li gën a dal xel mooy nga saraxel ko ko moom nga xam ne fu mën a nekk tuyaaba ji moom lay dellu ndax boo ko lekkee yow yéene wala su borom feeñee fay ko su borom feeñul nag day mel ni àq la yoo xam ne xamoo mën ngaa dem ba génn àdduna mu ñëw di mu door a feeñ kon saraxel ko ko mu ëpp mu gën a dal xel donte nag boroom xam-xam ne sañ nga ko lekk yéene ci saa yi borom fay nga fay. Euh, kii moom day laaj mu ne ndax koo xam ne dafa am tawati asma ndax mën naa jëfandikoo pompe yi nga xam ne moom lañ koy jox ak ndax bu ko jëfandikoo dina am jeexit ci koor gi wala déet. waaw li borom xam-xam wax de mooy pomp asma day yàq koor ndax gaz boobu dugg ci nit day dem ba ci biir day jeexital. ndax saxaar a ko gën a woyof te saxaar day dog ko saxaaru cóolos cin saxaaru cigarette day yàq ko ñoom ci yooyu lañ ko boole waaye nit ki nag bu asma dafa wéradi dafa wéradi kon su ko kirisu asma dabee sañ naa jëfandikoo pompe bi dog kooram ñuy mel ne ku wéradi ba jóg ramadaan dem jox ko lekk wala jox ndox mu naan ngir faju su ëllëgee mu mu fay mu ne bu demoon nag asma bi àgg ci amul benn bis bu ko du daaneel nga xam ne moom bis bi set dana ko daane kooko day jàpp ne war wàcc na daa wéere di wéere di goo xam ne mënta ànd ak ko su boobaa moom dañuy sopp mu leele waaye fii léeg-léeg la koy daaneel su xëyee na woor su ko dabee mu dog su ko dog bu mu àggale kooram bis yi mu ko dab nag day dog kooram lekk lay des ci bis ba wéeru jeexee mu fay amu ci benn bakkaar nag ndax wéeradi la waaye nag jërut forcé jërul forcé wax ne comme damay fay duma ma pomp damay bàyyi ba dog jot rek ndax loolu it léeg-léeg lor sa bopp la te lislaam day tere nit di lor boppam ndax yàlla mi santaane nga woor moo la sant ba woppee nga faj kii moom day laaj mu ne ndax koo xam ne dafa am tawati jëlis nga xam ne ba léeg-léeg day dem ñu xoolaat deret yi mu ne ndax ku woor mën na koo def ak bu ko wooree bu wooree def day war a fay wala déet. waaw loolu la borom xam-xam wax de nee nañ jëlis deret jooju moom luy dundal yaram wi la aw ñam la wuñ defaat buñ def ci biiram moo tax ku ku dafa xasil kalaw yi ci ci koor bëccëg Ramadan bis booba da koy dog su jàllee mu fay. jërëjëf sëriñ bi kii moom day laaj mu ne ndax dagal na ci góor su bëggee denc jigéen mu def listixaar ak nan la koy defee. waaw listixaara moom dañ koo santaane eh, sayiduna jaabir ma wax ne radiallahu anhu dañ ñu daan digal ñaanu listixaara nit ñu daan dañ ko daan jàngal nit ñu daan jàngale saari alxuraan yi nee na yonent islam moo ne ku ci amati mbir mu yitteel mu bëgg a dugg bala caa dugg ne julli ñaar rakka yoo xam du farata bu na ko jàng ñaanu listixaara ñaan la koo xam ne lañ koy wax ma yow sama borom maa ngi ñaan nga dogalal ma lii may dugg bu gënee ci man nang ma ko yombalal te jàppandal ma su gënul ci man nang ma wëlbati te yombalal ma la gën ci man ñaan boobu lañ bëgg mu def ko balaa dugg ci mbir mu mën a doon loolu dañ ko santaat nit ci mën na ko defal boppam man na ko def lu nit loolu moom ci sunna yonent sax sall bokk yim santaane woon saxaaba yi ne ñaan boobu dañ ko daan jàngal jàngalante niñ daan jàngalante bu saar alxuraan ma saawaj kon lu yitteel loolu la kii moom day laaj mu na ndax jullit ajuma mën nañ koo def ci usine boo xam ne léeg-léeg ñu déplacé wu ak yan mooy charte ajuma yi daje ñu mën a julli ajuma ci barab waaw bu dee ci barab moom ajuma dañuy sàtt na doon barab boo xam ne ña fa nekk dañ fa fas yéenee dëkk bépp barab boo xam ne ña fa nekk dañ fay nekk ak diir jóge fa comme màngaankat yi ak léeg-léeg ñi nga xam ne ñu def ay campagne dem ba ci àll bi te leen soldats yi di ko def daf fa juróom benn weer def fa seeni camp foofa kenn du fa julaa ji ndax yéene wuñ faa dëkk bi ci des it nit na dëkk boo xam ne mat na ab dëkk nga xam ne doon xew dëkk ba ñoom danañ mën a jóg jàmmar waaye ñetti nit ñeenti nit bu dajale woon dëkk ci as ndëkk ñooñu duñ fa tabax juma kon bu fekkee nag ne usine bi ay dëkkukaay la dëkkukaay la boo xam ne li ñu wax daje na ci nit ñi fa nekk dañ faa fas yéene sax te lim yi mat na mën nañ faa defar jumaa di fa julli xam naa nag muy tuxu tuxu loolu leerul ci man ndax jumaa moom day nekk benn barab ñu tabax dañuy wax ne dañuy tere jumaa mu yées li nit ñi dëkkee maanaam moom xëy na li ko li nga koy wut la jàkka rek bu dee jàkka lu ne mën nga koo defar bu nekk jàkka waaye bu dee jumaa dañ lay wax ne la li nit ñi dëkkee bu nga ko yées maanaam bu fekkonte ne waaye dëkk bi ay tabax lañ dëkkee mën a wut mbaarum seng ne mooy jumaa ji faaw jumaa ji mbaar tabax lay doon kon kon bu fekkee lu mel noonu la nga xam ne dëppoo naag li ñu wax te ña fa nekk sax fa mbooloo mate ko mën nañu julli ajuma kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci jullit bu jigéen mu def li ñuy tuddee pose ay xef ak yu deme noonu ak ndax yooyu bu ko defee su jàppee njàpp ma dina wér si ay xef daganul ndax jokk kawar ci biir jokk kawar la ko war a waxu dugal te yàlla ci làmmiñu islaam rëbboon na ñi nga xam ne dañuy jokk kawar ak ñu koy jokkul ndax kawar guñ ci luñ ci yokk la bi ci des it baaxut ci wér gu nit yi docteur yi saxal xam leen nañu baaxut dana am ay wéradi ci wàll bët yu muy def yoo xam ne bu ko nit ki baree lu muy def mën naa jékki-jékki mu yàq bëtam kon baaxut bu ci sit bu fekkee nag ne boo ko defee dana tax xef yi dëgg du tooy su boobaa bu jàppee jàpp mu baaxul ndax bu fekkee luy gaar gàllankoor xef yi ba moom mooy tooy waaye yi nga xam ne moom la yàlla bindoon du tooy soo jàppee su boobaa njàpp matul te bu njàpp matul boo jëlee julli ko du baax yooyu yëpp nag bu dajee lu fi jar gàddu ay xef man gisu ko baaxut ci bët lislaam da koy tere mën naa tax boo jaamu yàlla jaamu yàlla du baax loolu na jàpp naa ne bëgg ab taar fekkee ne ab taara ngi ci fekkee ne ab taara ngi ci. kii moom day laaj mu ne lan mooy àttab imaam joo xam ne léeg-léeg bu dee jiitee day miir mu ne ndax su boobaa mën naa ñobbi kenn mu wuutu ko wala mën naa toog continue julli waaw ci mësab bi de nit bu amee ngànt ci biir julli ngànte ñaar la ngànt luy tax du mën a wéyal julli gi da koy dagg dem ni ki mu doon julli bu yàgg toj wala muy bori di génne deret sobe la day génn dem wutal kenn bu dee ngànt loo xam ne nag julli gi yàquwut waaye jiite la mën a tudd ci noonu mu wax bu dee miir ba mënta taxaw ci mazhab bi ku mënta taxaw du jiite kuy taxaw souvent day dellu ginnaaw dem ci sàppe ya xëcc kenn koo ko dem àggal julli moom la ci des mu àggalee ko toog ndax loolu la man du yàqu julleem keneen ne ñëw àggale julleem bu fekke mir la wala yeneen wéradi go xam dal munu ko bolé def ponk yi ba mat kon mom julli gi du yàqu nak do dootu jité lan moy àtte ko xamné dafa lek wala mu nan yaakar ne jant bi sona wala bu dé ci suba gi la muy lek di nan japp né heure japp xam nga da bok ci sunnay koor bu jant bi sona ginnaaw bu mu la wóoree da jant bi sono nit buy sikki sàkka sëñ ko dog buy sikki sàkka dog rek sa kodd yàqu nit dañoo sopp yeex a xëdd waaye njëkk fajar di jot tax yooyu moom nit wóor koy def ba noppi di sikki sàkk saa bu sikki sàkkaa ginnaaw ba nag mu am yaqiin ci ne moom kat lam dafoon nekk di baaxut kon day fay am na mu demee sax day fay kafaara ndax moo ko tey day jàpp moo ko tey kon li gëna bu gën dal ab julit bala nga dog na la leer ne jant bi sono na la leer ne waxtu ñu dog jot na nga dog bu ci mu gis mu leen rek nga ne xeyna xeyna dere na japp yit nak na la woor ne boo gisee ñuy bayyi sax ay nangam minute ngir bañ lool amata fi ne bu ñu wax japp jot na dana fekk léeg sax mu dess dara waye nak lool moy tax nit ñi baña ag ci nak di jëf ci waxtu woo xam day fekk japp jot lool yu ma bayyi xel nak jaamu yalla la te jaamu gi ne ni ko yàlla santaane noonu lañ ko war a defee ab jur waru ko fay waru ko kafe waru ci jëmee nag ay nattable ci sikki sàkk ndax diine ci yàqin lañ koy tabax dee su ko tabax ci sikki sàkk euh, kii moom day laaj mu ne ana yan weer moom lañu ñu taamu ngir takk ci ab sëy ak ndax am na ay weer yoo xam ne dañ naan weer yi kat taamu wuñ ko ci denc wala ko ci takk ab sëy ci charia islami moom weer wu ñu wax ne dañuy tere ku ca takk ab sëy man xaw ma jàpp ma yëpp weer yàlla bis yëpp bis yàlla am na nag yoo xam ne mën nañoo seetlu mag ñi ko doon tere am na xekk ma xikma masal ramadan mag ñi bari dañuy tere takk ci ab sëy man li ma jàpp ne moo ko waral takk ab sëy ci ramadan daa wóoru gone gu góor gu ak seet ba ci Ramadan ñoom ñaar bu ñu fi nekkee seen koor ma naa yàqu kafaara mën na li war ñu bàyyi bu yi ñu door leen a fasal mu gën a wóor damaa jàpp ne mag ñi yooyu dañu doon bàyyi xel waaye tekki ne sariya moo tere sariya moo tere takk ak sëy ci Ramadan wala ci weer sànq waaye Ramadan ak baraxlu dañoo jege ndax baraxlu yi du fekk weeru weeru weeru weeru asal bi jeexagul yooyu yëpp bu amee nit ki koor mën naa yàqu ci ci ci yu ndaw. jàpp naa ne mag ñi yooyu taxuñu di ko tere waaye terewuñ ko ngir ne charia moo wax ne buñ ko def. jërëjëf sëriñ bi kii moom day laaj mu ne lan moo tax lislaam xaraamal ñuy lekk yàpp mbaam. ndax yonentu yàlla Muhammad moo ne xaraam na ndax rijs la min amali sheytaan da xaybar la ko xaraamal ba mu ko waxee cin yañ taaloon di togg dañ koo këpp kenn lépp yàpp mbaam yonentu yàlla Muhammad moo wax ne xaraam nañ. mbaam kër gi dafa xaraam mbaam xuux dafa xaraam mbaam mi dagan mel na mbaam moo dagan ci mbaam yi muy àll mbaam àll nag mbokk yi li nekk Sénégal gii dama xam fi ay gaa mbaam xuux mu ne ci àll bi la ngara ngara mbaam xuux la ba demee ci Mauritanie aar lañ koy tudde borom xoox yëpp nañ ci mbaam xuux la lekk ko mbaam àll mooy li am lu mel ni ay rëdd loolu moom gëw ma ne bu amee Sénégal yi bari na loolu moo dagan ci mbaam yi ay mbaam sëf yi mbaam xuux yi ne ci kër yi mbaam xuux yi ne ci àll ñu koy tudde ngara ku leen lekk lekk nga mam ko mata bàyyi xel lu bokk euh, kii moom day laaj mu ne koo xam ne dafa bëgg la rakka yu bari wala daal lim bu baree bari ci ay la mu ne ndax bu yéenee benn yéene rek mën naa yóbbaale lépp wala day def ñaar rakka yu muy julli yu nekk mu beral ko yéenam waaw xam nga tarawih dañ koo jàppe ak jenn jàngu yàlla nit ki mën naa yéene jénn yéene waaye nag du teye sopp nañ saa bu sëlmale yeesal yéene comme ni ñu ko xamee ci koor bu ramadaan dañ koy jokkale sañ naa yéene jénn yéene ngir boobul ngànt jénn yi di ko yóbbu waaye teewut sopp nañ guddi gu jot mu yeesal yéene kon moom bu ko jàppee jenn jaamu yéene ko jënd yéene suuf sës sësale leen baax na waaye su sëlmalee ñaar rakkaay yu ne yees talaat yéeneem bañul dara aw yiw la ci kaw yiw euh, kii moom day laaj mu ne dafa am lu ñuy tuddee coro jinne muy laaj ba xam ndax loolu lu am dëgg dëgg la wala déet ak jullit bi ban taxawaay la war a am ci loolu xam nga yooyu moom ci lënt yi la bokk donte borom xam-xam nee ñu jinne ak nit danañu jëflante ci àdduna ab sëy sax nee ñu dana dox seen diggante waaye doom mënu ca am moom ndax bokkuñ tabiya loolu la mu xàq ko ni wax am maa wax ne daa am faru rab lislaam du sukkandiku ci loolu ndax boobaa jigéen mën naa dem fee taxawaalu ba noppi ñëw ni faru rab la moo tax yu mel noonu lislaam du sukkandiku ci mel noonu moom ci zahir la ñuy àtte zahir la ñuy ko àtte waaye daal teewut borom xëy di wax ne jëflante moom ci diggante nit ak jinne dana di am di jàppalante ci ay mbir ndax jinne yi am na ci ay jóg ay jullit ñu gëm am na ci it ñu sàggan nag ñoo xam ne ñooy def jaaxu bi waaye nag dañuy wax ne doom moom mënut am seen diggante moo tax ku ko woote it duñ ko jàpp kii moom de laaj mu ne lan mooy àttab ku fàtte benn farata ci faratay julli yi ak kooku fàtte lan moo koy war waaw benn farata farata julli fekkee sëlmalagul rakka ba farata ja lay bàyyi yokk benn rakka bu doon ab sujjóot la wala ab rukkoo bu sëlmalee nag toog lu yàgg julli ko day yàqu kooku day jóg julliwaat julli ko ndax farata moom dee su ko jangee ay sujjóot sujjóot sujjóot yi ñuy wax sunna lay jang waaye du jang farata kon ku bàyyi farata boo sëlmalagut wala ngay door a sëlmal mën ngaa jóg yéwénal ko da ngay bàyyi rakka booba indi benn rakka boo noppee sujjóot wax de salaam bu yàggee nag julli ko day yàqu kii moom nee na dama seetlu ne imaam bi bu dee julli suba ci rakka bu mujj bi su jàngee faatiha jàngalam cay teg day am diir bu muy noppi nee na muy laaj ba xam noppi googu lu ko waral ak diir boobu imaam bi noppi maamum bi moom lu muy def ki topp ci ginnaaw waaw noppi googu bu dee ci masab Malik lu ñu sopp la ndax dañ ci jàng xunóot ci masab Malik julli suba yépp ginnaaw rakkab ñaareel bi ginnaaw faatiha ku saar njëkk rukkoo wala sax ginnaaw rukkoo léeg-léeg dañ jàng ñaanu xunut ñaan googu nag ilimaan ak maamoom ñëpp lañ bëgg ñu jàng kon kenn ku jil dana ko jàng bu dee ilimaan da koy yelu waaye su waaye it maamoom yi dañoo déglu mu jàng faatiha ku bu tàmbalee yelu nag ñoom nañ yelu jàng xunut xunut boobu nag lu ñu sopp la bu ko defutoon nag du yàqu dara ci julli gi te du ko sujjóotaleen nag waaye su ko fàttewoon ba rukkoo bu siggee mën na koo jàng dooru man na ko jang do rusu jot ay nak ko fàtte woon ba sëlmali du wàññi dara du yak dara ci julli kii day la mané ndax dagan na ci ko xamné day liggéey ci ben station néna na am ko ñew yor ben bon bo xam dal fukki litre mo ci wara nek néna waji nako jox ma juróomi litre ci gasoil wala essence juróomi litre ci dess nga jox mako ko ci xaliss waye nak waji liggéey nak day am ben pourcentage bu mu ci am su su ko joxee juróomi litre ci xaalis muy laaj ba xam ndax loolu dina dagan wala déet. waaw moom de bu fekkee ne jaay gaasuwaal lañ koy def loo waaye ji indil ko ab bon boo xam ne gaasuwaal a ci ne mel ne moom jaay gaasuwaal moo ko war waaye day mel ne foofu daa jënd gaasuwaal ndax bu dee fukki liitar mu jaayee ko juróomi yeneen juróom yi mu ne ko jox ma ko xaalis kon day mel ne lu mu waroon a jaay la mu jënd ko moom. bu fekkee am na ci ndigalul këyilif barab ba de nga ne moom moo moo bëgg jën jënd loolu baax na amma lam cay jële nu muy tudd xaw ma ko nu muy tudd ndax bu fekkee ne da ko koy neexale ngir mu nongul ko ko ngir ak boo liggéey loolu ger na dëgganut bu fekkee ne it day doon loo xam ne moom dañ ko faa teg di ko jaayloo gasoil jaayut gasoil bi xanaa bàyyi fa gasoil ba lekk ci xaalis ma ngay tooñ boroom kër gi koy liggéeyloo la yëpp wéy lant amaa nag bu fekkoon borom borom liggéeyukaay bi moo ko may loolu xamal ko ne ku ko indi bon man nga koo jënd ndax ba day mel ne rek borom boo bi daa jaay gaasuwaal bi xëy na bu ko jaay nag jaayee ko njëg gu giñ ko baaxoo jaayee comme moom moom gaasuwaal bu ko neexee jaayee ko yées loolu waaye na leer ne moom ki pomp moom jaayee lañ ko def la waaye ki néew ko jëndal gaasuwaal kon bu gas wal ci lu ndigal kilifaam dama japp ne lu du jubé rawatina mu am ci xaalis bo xam ne dañ ko don jaayal wal bi jaayi ko ba pare récupéré ci xaalis loolu leeru ci ci man japp na ne du lu dagal euh, ki mom day laaj mu ne lan moy atte ku wor nelaw laata waxtu dok di jot dan yalla dogal nak mu sarale di nelaw ba xeyat ci bëccëg bi door a yeewu mu ne ndax kon bu yewoo day dog wala day continuer koor gi. ah bu fekkee ne ba muy um façon na yéen war weer wi yow day woor bu dëggee ci lu ngant na fay kafaar ah, nelaw yooyu mu jaaduwutoon ah, nelaw ba saral loolu bu jaaduwut xanaa fam nekkee néew fa mais bu fa nekkee sax jaaduwut nit ñi di ko bàyyi muy nelaw di saral loolu wóor ah, loolu moom tiyaar bu ji bare bare xam na ko bopp bare bare ndax dañoo bëgg jàmm su wooree woor du ngànt mbokk yi ba lu baax li nga doon nga di ko bàyyi wala nga di ko wàññi da ko yokk nit ki boo waree daa war a am bu mag ci ruuxaaniya bu tax mu gën a mën a def lu baax ay waru ko wàññi ngir koor yi waaye jàpp boo waree da ngay nelaw moom bu bëccëg bépp dañ bu ñuy dog dañ lay yee kooku ñu wax ne warul de ci sariya waaye nag yiw bi ñuy séenu ci koor moom du ca bari la du ca bari la hmm. kii moom day laaj mu ne ndax dagal na ci jigéen mu ziyaare ay armeel jigéen siyaare armeel day wax yu bare jàmm waaye li ci gën a lëng mooy dañ koy tare donte nag xadis bi ci rot daa wax ne laanallaahu zawaaraatil qubur yàlla rëbb na ñiy ziyaare ay bàmmeel zawaaraat nag dañuy wax ne siixatu mubaalaxa la maanaam ñi fay dem lu bari ñooñu dañuy wax ne bu fekkee bariwut lu mu fay dem nga xam ne xëy na léeg-léeg la te buy dem dana yor melokaan yuñ sant ab jullit suba mën naa dem armée loolu lu jafe la bi ci des it euh, li ñu yóbbu ci armée dëgg-dëgg dafa yóbbu nit indi sam daa waxoon ne tere woon naa leen ko léegi dee leen ko def ndax day fàttali bàmmeel bu fekkee day fàttali alaaxira bu fekkee nit ki bu fa demee daal fàttali de léeg jigéen dem ci armeel yóbbaale fa ay jooy yoo xam ne bu génn day tàggu sa bopp ñooñu waruñoo dem ci armeel koo xam ne melokaan wa ci ni mu toll mu solee wala la mu takk bu dee ñooñu waaye bu sàrt yi dajee nag nga xam ne melokaan bi ak jullit bu jigéen war a mel suy génn mel na ni te it bëriwut lu mu koy def xëy na su boobaa xadis bi ñi wax ne zawaaraat mafhumam mooy kon bu dee ay zairaat te bëriwut loolu mën nañ ko dong waaye daal euh, lor nekkut ci ñàkk def ci moom maanaam ñàkk dem ci armeel yi jigéen lor nekku ci bu dee ku faatu mën na koo ñaanal fa mu nekk lu ko ñaanal wax dana ci jot bu ma nee matal sàtt yi nag léeg lekk mën na fay dem su boobaa waaye nag nga xam ne bañ faa dem moo gën ndax ay risques yu ci dem bi te ñàkk faa dem amul la euh, kii moom day laaj mu ne lan mooy àtteeb ki toog ci diggante ñaari rakkaay yi toogaay bu gàtt waaye ni na loolu tëyu ko daal waaw toog bi bu fekkee ak daal amu ci dara nekku ci ndax daa am ci ngir yi ñuy wax ne jal jalsatul istiraaxa day am ci diggante rakkaay yi nga xam ne ñoom bu ñu jógee ci rakkaay bu njëkk dañuy toog tuuti dóoru jóg bu ñu jógee ci rakkaay bu ñetteel noonu waaye ki ko te amul ak dal nag dara wóor ci ndax dolli duñ ko tudd dolli waaye bu dal amoon nag ak dolli nay doon day sujjóot kii mu ne lan mooy atteb jigéen joo xam ne dafa nekk ak boroom këram waaye mbir yu ndaw a ndaw daal day tax mu mer gàddu ay bagages mu dem kër yaayam kooka damaa jàpp ne dañ koo waajal lu tuba bi sëy si ak sëy mbokk yi mag ñi dañ ko doon jàng di ci tàggat ndaw li di ko ci waajal bu mu doonee xale dañuy tàmm mooy tax bu demee kër xam ne ci mas ron mas uuree la nekk xam ne jaamu yàlla la dafay dafay dafay liggéeyal si yàlla day fàggu ak njaboot day day day day day day day sàmm suma aw ay bokkam waaye yooyu yëpp nag bu fekkee nit dafa màgg judd bu màgg kenn jàngalu ko yëpp mu nekk kër baayam lu mu bëgg ñu defal ko ko saa yu meree ñu neexal ko kooku bu sëyee it day jàpp ne la war deme motax dong doom ju jigéen dañ koy yar wax xam nga ne li ngay ñaan yalla moy mu taggo ye ya dem fa xel bu fu dem du ci bu demee ya dama del ci sa ci yow la ndax ya sa doom ya ko jagalu te nit nak melu nen kullu mawludin yuladu ala al fitra nit melu nen ak mana bax lay judduwaale loolu ñu wax fa abawahu yuhawidani aw yu ay aw ani mel ay wajurum waa ngi taxaw taw ñoko ci def kon man nañ ko yar ba bu demé keur du ci bokk na ci li ñuy tagg jigéen ñi diw fay bi mbokk mosuñoo fay mosuñoo fay mom mu dem ci kër ñaar baat ñett mu fay dem kooku jëgut kon dañoo wara yar doomi ba nga xam bu demé ci kër ndax loolu ab xexal ab ab ab guerre la jihad la jihad la bëgg wax ab say jihad la da ngay liggéeyal yalla ci sa bët sa kër borom kër muy metti di tang di dëgër ngay muñ ngir bo ëllëgee nga am dara am yiw am aljanna ay eh, kuy def bu tangé mu daw mom do am dara lol nak dañ ci tàggat nit ki yar ko ci parce que faw ñu yar jigeen ñi ñu xam dañu wara sey ne ci kër di sey waye daf leen ay ay ay ay ay ay prince ay princesse euh, do leen lo dara te buñ démé kër mënuñ dara ku leen tuddu nga bëgg mer tek ya def lepp loolu lu mata baye xel mbokk ki mu ne mom ndax dagan na ci julit ñi ñu dajalo ci lu melni Europe ci benn barab ngir dafa ay ndogu mu ne waaye barab nag dafa am mandarga muy wane mandarga nguur jigéen waaw xam naa bu dee ay julit daal yu dayee ci barab di dimbulante ngir yàlla loolu dara nekku ci ndax mandarga yooyu moom nit ñu bari ñu ngi koy wax naan mandarga yi góor jigéen da waaye ñëpp ci nit ñi dañ koy romb dem seen yoon du ci nekk xamul lu mu doon xëy na am ñu koy def nag am luñ ci jublu waaye li am solo mooy yow miy def ak lii tax di def bu fekkee daal mën nañoo am barab boo xam ne sikk sàkk amu ci lenn luñ fay sikk néew fu moo gën waaye su mënta am nag barab boo xam ne ñoom dañ fay dajee def lu baax di defar ay ndogu julli ñi di ko lekk ngir yàlla luñ fa taf loo xam ne dañ ne mandargal nangam te ñoom seen yoon néew ca wóor leen ko yàqal ñoom ña ko gëm nañ nañ ca nekk di am lu bon yow ngay dox ay ndogu di lu baax ndax am na ci barab yoo xam ne ay dañu ko yomb fa te moomoo ko it nag yilifoo foofa barab yi ñu maye ñëpp lañ ko may kenn koy dafa indi sam njaay kon yow la nga fa moom fexe ba jëfandikoo ko la nga fa sañ ci anam gu dagan rek ay yéen ci des mm, laaj bi ñuy mujjee day laaj ne lan moo tax yenn jàkka yi su koor gi ñëwee bu ñuy naafile day fees waaye bu ñu dee julli waxtu juróom yi ñaari nit ñi du ko tax a bari lool. loolu moom bokk na ci li jaaxal ñëpp jaam ñu bari jaam ñu bari bu ramadaan dikkee dañuy bàyyi xel yàlla. bu ramadan jeexee ñu fàtte yàlla dañuy fonk jàkk di julli waxtu juróom di julli ci ajjuma di nafila di jàng alquran di jang xasida waaye fu ñu nee taafeer ñu laf yëpp loolu de loolu bokk na ci màndargam amoo xabul dañuy wax ne bokk na ci màndargay koor gi nangul nañ la ko yu baax yi ci tàmmi woon bi ramadaan jeexee nga wéyal waaye boo tàmmee yu baax ci ramadan mu jeex nga sànni yeb xamal ne ko kenn nanguwul wala mën naa moytu te it nag waxuñ ne na wéy ci même kii bi waaye nag waxtu juróom tàmmoon nga ko ci koor fexeel boo yël ko julli jafewut te foo nekk jàkkaa nga sawet bu julli te nga dem julli fa julli mbooloo gënee na julli kenn ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar booy dem ak di jéego yi dañ la koy bindal ay tuyaaba yiw bu toll noonu ak julli ko xañ boppam waaye bu ramadaan dikkee nga baax lool bu ramadaan jeexee nag nga dellu fa nga newoon loolu nit ki koy def day mel ni moom yokkuwut te nit bu yokkuwut day wàññi moo tax ramadaan ab lël la war a doon ci nit nga fiy yokkoo ñu fi jële ciy baax bu jàllee bu mënti tëy yëpp tëy ci yu bari bu benn ramadaan ñëwee nga tëy di bari bu yàggee rek kenn du la gën a loolu lañ soxla ci jërëjëf sëriñ bi kon day mel ni loolu mooy laaj yi fi ratoon xanaa ñu bàyyi nga tàggoo rek ñu door a tëj ok jërëjëf sëriñ sax xanaa di dal di nuyu mbokk yi di leen ziara bi ñaan suñu borom dafa ñu dégg ak topp di wax ne lii laayante biir la rek ay julit buñ bokkee dañoo war di laayante biir kenn ku ne laa biire morom ma pët kan jam ko tane mu di ko ci dimbale ci waxtu yëpp jamono yëpp béréb yëpp waaye rawatina ci ramadan kon jataay ya xam-xam yi yu am solo la nit ñi di ko ak di ko topp ak di ci jariñ waaye di ci jariñe sax ba mu yaatu ndax bari waa na ci nit ñoo xam la ñuy def ci ab safaan ñàkk xam moo leen ci dugal saa bu ñu xamee noonu dañ ko bàyyi yàlla yàlla defal ndimbal ak tawfiq may ñu jàmm dimbale ñu ba lim digg ci weer ñu man ko waaye lim ci digg lépp yàlla na ko yàlla defal barke sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu